kulli saarin wa fi safar xamaani ala maahin maal absa wa safar falaahi bi kawni abda rabbi xadimahu ajibun bihi li jaada moonin anin nafar raditu anil mawla wa an xayri xalqi alayhi salaama man luwu ubtu bi safar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 waaw mu ngi nii taxaw na Serigne Saloum xam ne liggéey bi nga xam daal moom ci lañ nekk di ko defar sëñ ndaam moom itam muy di suñu Serigne di suñu jëwriñ ñu fas yéene ko ànd rek waaw fas yéene ko ànd rek barkeb Cheikh Ibra waaw waaw di ñaan di loolee Cheikh Rafal lii lii lii seenu bëgg sëñ Ablaye ak sëñ Saliou ñoom ñi nga xam ne ak yéen a ne fi taxaw taxawaay bi ngeen war a taxaw yëpp taxaw ngeen ko di leen saa borom kattanal rek fu ngeen si bëgg a àgg rek ngeen weesu ko barke Cheikh waaw noo gën a bëgg noo gën a bëgg waaw noo gën a bëgg lii rek mbégte waaw na fi dajeeg euh, <laughs> waaw dëgg yàlla lii rek waaw ñaan ñaan gu nangu na rek waaw yéen moom wax dëgg yàlla da ngeen di alali sëñ bi waaw da ngeen di alali sëñ waaw te waxul leen ko da ngeen koo jëf waaw da ngeen koo jëf waaw nii ngeen def noonu ngeen def daaw daaw daaw jëpp di ko def màggal di ko def gàmm waaw ngir jëmmi sëñ Tuubaa rek waaw te seetu leen si dara waaw kon ñooñu ngeen koy defal nag am na nu pay te dañ ngeen ñi ngeen seeral seen xolit neen leen seen xol day sedd rek waaw barki maam Cheikh kanam rek waaw kanam rek barki maam Cheikh bismillah ak saa <laughs> jërëjëf jërëjëf sëñ Mamor maanaam ginnaaw boo ñëwee xam naa dañ dem ci caméra <laughs> waaye lii nii ki nga xam moo di président Abdoulaye Sylla mu ne ni maam ñi ñuy ni fañ fañ war a màggale fépp waaye yow nag mu tudd la ci boole la ci di teraanga ji war la koo jox sëñ maam Thierno loolu yemul tey sëñ Saliou noo ngi siyaar baax Cheikh taxa waaye may ziar wéy juróom soxna Aida di ziar sëñ Abdoulaye Sylla ndax moom ndax tey damay tàmbalee ci ni mu def barabu sëñ fàllu bi ndax damay tàmbalee mbalem Touba mi nga xam ni saa yu dugg see camion yi dugg see murit yi xam ni mbalit mi dina génn Touba ndax damay tàmbalee keroog bañ dajee Grand Mbassam ndax damay tàmbalee ndax damay tàmbalee ndax damay tàmbalee ni mu mel ci nag yi ma ñëw mu ne ma sa sa ndawal a ngi du tey duñ ne guléet te noonu la ko defee ci njabootu sañ Tuubaa gépp soxna Ayda su ma koy tooñ dama naan ko li doy waar mooy di la jox te doo ko gis di la jox te doo ko gis fotoom sax bi ko nit ñi miinee yàggu kon dañuy ñaan ci barke bis bi nga xamante ne barki démb laa jógee Gabon ñu ko ciy tudd xaret yow ma sabti saa mini asar li ma maxti muxtaar fii chahri safar sëriñ bi wax ne bis bi def leen ko lépp sañ Ablaye Sylla def nga bis bi lépp waaye di nga xam ne Serigne Touba lu gën a gore di xam ne sëñ Touba ëpp doole kalaame nañ la ak moom na faj say aajo zaahiranu baatin maam Thierno bég naa lool maam Thierno le cameraman de Ablaye Sylla maa ngi ziar baax Serigne Saliou bégati nañ barke Cheikh Ahmad Bamba li yàlla na yàgg barke sëñ Touba ajëf waaw bu ma la ko waxee yàgg fasaatu xayril xalqi abdat qasaidi wa kawni bi abdan xadiman lu sahar rabitu rabaan lam yakun qattu misluhu bi fadli lazi kawni habiban lu stahar salaatu lazi li xaada kawni xaliluhu ala man bi li tayyabal badwa wal xadar foto haati rabbi mbokk yi nag euh, ñoo ngi leen di nuyu ci màggal gi Euh, tey na dañoo bëgg a yëkkati ay kàddu ndax xam ngeen ne euh, man maay Abdou Khadre Seck maay administrateur Bawal Info euh, ñun ak Ecotra SA ñëpp xam ñu ñu yàgg a nekk ay partenaires président directeur général bi di Abdoulaye Sylla pendant ay at yu baree baree baree bëri Bawal Info TV ñoo ngi leen di gunge ci liggéey bi fii ci Touba. ci assainissement bi ndax xam ngeen ne Touba at yi yëpp passé day am jafe-jafe ndox euh, Ecotra SA jël personnel am jël flotte bi mu am yëpp ñëw pour euh, nettoyer mbedd yi ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir kër yi ñu jàppale leen bañ mën a màggal comme ñëpp waaye bu loolu tamit passé euh, Ecotra SA dafa nekk ak patron Abdoulaye Sylla dañoo jara jaajëfal ndax lu baax li nga xam ne moom la ñuy def ci réew mi ndax entrepreneur la di ab sénégalais boo xam ne ay junni junni nit la employé li muy fay masse mu nekk ay xaalis bu bëree bëree bëree bëri euh, bu màggal Touba jotee tamit bu passé assainissement bi mu dimbale nit ñi dafay def wàllum social mu nekk loo xam ne dafa munta ñàkk ndax Sénégal daf ko baaxoo ñu gis ne fii kilifa yi nga xam ne ñoo nekk fii ci dëkk bi di njabootu Sëriñ Touba gi ak cheikh yi ak taalibe yi Abdoulaye Sylla Ecotra SA dafa leen di jàppale ci lu bëree bëree bari moo xam ay nag la wala ay gileem wala ay enveloppe waaye yëmul rek si njabootu suñ tubaa gi dafay dem tamit ci ñi nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw ñooñu tamit ñoo leen di jàppale ngir màggal gi ñëpp mën a mën a bernde muy lu am solo kon moo tax man naa ni kàddu yu seede ndax tey neewaan kër goo xam ne ci Touba loxob Abdoulaye Sylla Euh, dugg fa kër yëpp mën nañoo wax waaye mu ànd ko nag ak euh, ñii mu fi bàyyi ay ndawam ku si mel ni Serigne Saliou mii muy jàmbaar moom ti muy taalibe Serigne Touba muy koo xam ne ku déggal Ablaye la muy koo xam ne daf koy liggéeyal ndax kilifa bu la tegee ci bërëb dafa am noo xam ne moom ngay war a doxee niñ gis si moom mu koy doxee ak euh, kilifa yi loolu rafetlu nañ ko ni muy doxalee ak taalibe tamit rafetlu nañ ko ñi ko Ablaye di booleel tamit ni mu koy doxee loolu ñun. Euh, rafetlu nañ ko ah, kon loolu la ñu waxoon ne danañ ko si wax Ablaye daal vraiment ñu koy euh, jaajëfal di wax nag euh, sénégalais yi rawatina mbokk suñ mbokk taalibe yi ñu gën ko ñaanal gën ko jàppale ndax nit ku baax la nit kuy liggéeyal réewum la tey fi ni màggal Tuubaa moo jot mais bu gàmm jotoon tey yaa ngi dégg Ablaye ci yeneen confrérie yi bu Njaasaan jotoon ñëpp xam nañ digganteem ak Njaasaan Euh, Kaolack euh, église bi maanaam bàyyiwul fenn kon euh, sëñ Saliou vraiment yow tamit ñuy kontaan si yow di ñaan yàlla teel ñu ko léegi bu baax a baax. asalaamaaleykum. inna wali yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasul ñu ngi leen di ziar yéen mbokk jullit yi rawatina suñ mbokk taalibe murit di di ziar sama xarit bi nga xam ne moom suma wëllëre la suñ Abdou sëñ Abdou Xaadir maa ngi lay ziar bu baax di la jox sa wàccuwaay waaw comme noonu comme ni ñu ko président waxee rek liggéey bi ñu ngi ko tàmbali démb di ko di ko wéyal tey mooy fépp fi nga xam ne nii jox nañu fa ndigal rek mooy ci sancaan yi nekk Touba ak ci jàkka yi nga xam ne nii nekk nañ biir Touba mu toll ci limu 160 jàkka fépp foo xam ne nii am na fa jàkka rek war nañ fa yóbbu gàtt mooy li sëñ Touba waxoon rek dama leen dama woo mbokki jullit yi ñu sant leme yàlla suñu borom ci tawfeex gi mu ko defal ba tax na loolu nag Ablaye Sylla nee na bëggul kenn ku ko ci man moo tax daal wax dëgg yàlla mu yónni ñu yónni ñu ci mbokki taalibe yi yónni ñu ci askan wi ñu war a liggéey bi tey war nañoo dem pencum njenne war a dem keere mbay keere ndaw dem mayal dem tawfeex ak fépp gox-goxaat yi nekk ci biir yi nga xam ne nii wax dëgg yàlla bëgg nañoo màggal bis bi suba incha allah Ablaye Sylla bëgg na fa wane boppam bu soobee yàlla bëgg ci ànd ak mboole mbokki jullit yëpp mbokki taalibe ajibun bihi rijada munina min nafar haditu anil mawla wa an xayri xalqi alayhi salaama man luwu ubtu bi safar salaatun wa tasliimun maal bisri sarmadan ala man bi mukti maal amni wal bashar firaari bilmuxtaari min qablu qaadali mukuusan wa tafsiiran ladal jinni wal bashar rabaatu kuran baada hamdin muqalladin li baaqin ma durra alladi hadu qadar salaatu alladi anumu abdan loo bi على من بي لي خاد سبوا بلا كدر فساة خير الخلق أبدت قصائدي وكوني بها عبدا خديما لو سهر asalaamaaleykum mbokk jullit yi bu ngeen gisee sunu taxawaay bi xam ne noo ngi fii ci Daralug Mbindi màggal édition 2024 waaye jàmbaar ji muy président Ablaye Sylla di borom Ecotra di koo xam ni duna kenn demal ma toog yoonu murit min jëfam mu xam ni bis bii la sëñ santaane woon mu daal di jël nag yu bari lim bi bari na démb tey rek ñaar téeméeri nag yu manqué tuuti séddale nañ ko bi ko ci waa mu xaddimaatu xitma waxee ni muy def mboolem jàkka yi ci Touba ak jumaa yi fu ci ne danañ fa yóbbu ndawal waaye danañ fa yóbbu la cay ànd. ndax nag këndëng koo ko jox jaaxal nga ko waaye boo ko nee lii jar ceeb lii jar diwlin lii mooy pombiteer lii mooy soble kooku dimbali nga ko kon sëñ si Sylla nun murit yi dañuy ñaan say xéewal sëñ Tuubaa yokk ko te noo ngi continuer ci joxe bi kat dañuy joxe ba guddi ëppoon na lii am na yu nuy xaar te noonu lay def ci alalam mbalem tuuba lenn lu ci nekk keroog bi kam yooyu jëwee mal dëkk bi rek lañ xam ne luy mbalit moom dana génn te bu ñu màggalee ba noppi luy mbalit Serigne Abdoulaye Sylla dina ko génnewaat Touba loolu nag bu ko ab murid di def nanu ko ñaanal waaye nag bis bii bis bii mooy xarat yow ma sabti saamini asar li xidmati muxtaar fii chahri safar bis bii rek la nu am waaye nag sëriñ Touba Bamba mu ne sulaa misaal yaay géej gi waa Sénégal deesu la jàll genn gaal say du sa tooyal xarnu bi ku soobu génnaale dërëm bekkoor bi dootu dem këram ku ne corom kaasu ngërëm du mar li des ci xarnu bi géeju xikkam giñ daan dëtam moo ko ni secc moo ñoñom monsieur Souta nandal ko xam toqeen wi doy na xarnu bi Serigne Touba lumloo na fóore yi woon raamloo na kànga yi mu yoon daane na mbëri fi woon melam amut ci xarnu bi sëñ Ablaye Sylla yal na seriñ Touba yokk saw fan yokk sa wërsëg wéral la ba li nga bëgg a yoon wi xam naa yéene ji rëy na yàlla na ko yàlla àggale ci barke Sëñ Touba lu fi xewaat rek ci magla màggal gi nu ànd koog sëñ Ablaye Sylla ak rakam ju baax ji nga xam ne mooy Serigne Saliou di ziar baax a baax docteur Alioune Sylla ci taxawaay bi ci modeste bi ci mbaax gi ci bëgg gi Serigne Touba waaye nag moo cameraman le cameraman de Serigne Touba cameraman de Ablaye Sylla ah sëñ maam Thierno Faye mention spéciale aouzu billahi min asheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim ñu ngi leen di ziar mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi ku ci nekk euh, ñu ngi koy nuyu ci turam ak santam di leen jox seen wàccuwaay di fas yéene wéyal liggéey bi rek comme niñ ko tàmbalee ci suba ba léegi ku geestu gis li suñ ginnaaw xam ne mooy xéewalu président Ablaye Sylla yi ci ci safar gi jëwriñ président Abdoulaye Sylla bi mu joxee ndigal boobu ba léegi ñu ngi ci depuis démb tàmbali ko ci gox-goxaat yi nekk biir Touba maanaam ci quartier yi nga xam ne nii moom lañ mooy représenter dëkk bi gox yi nga xam ne nii ñoo gën a regroupé population bi gën a diminué ci dëkk bi ñu dem di fa di fa am taxawaay bu am solo mu fay yóbbu ay xéewal ku wax màggal nag wax berne te ku wax berne wax gàtt loolu day lu am solo ci cant gi ñuy cantal ku tedd gi muy Serigne Touba moom la dafa wax ne woo naa leen yéen mbokk jullit yi ngeen ñëw sant ma yàlla suñu boroom ci mbégte mi mu ko defal ba tax na loolu daal président si la nee nag kenn du ko ci mën moo tax daal mu jox ñu ndigal dañu dem ñu dem ci ci gox yu gox goxaat yi nekk biir Touba. fuñ ci dem rek ñu jox leen ay xéewal ci turam liggéey boobu nag la ñuy wéyal dem ba léegi tollu ci fii dem nañ nindi léegi dem Kéré Mbay dem Kéré Ndaw dem Mayal fas yéene dem Mbàkke ndaxte am na foofu benn club c fa ñuy regroupé wu fas yéene lan fa yóbbul ay xéewal tamit ñu gis seen bopp ci bis bi dem nañ njende tamit maanaam ci misaal daal gox yi gën a fasatikoo ci dëkk bi yëpp yóbbu nañ fa ay xéewal ci turu président Ablaye Sylla ak Baye Fall yi sama mbokk Baye Fall yi mooy sëñ Daam Sooda moom mi nga xam ne nii mooy yor war may dëkk bi moom la sëñ bi dénk moo fi ñëw léegi moom moom mooy suñu lépp moo représenté lépp bi mu fi ñëwee tamit jox nañ ko wàllam ci mbir mi comme ni ñu ko président Abdoulaye Sylla santé ba tax na daal liggéey bi foofu la ci toll muy ay leeral lu ñu ci doon def rek fépp fu ñu ci toll rek dinañ leen ko leeral baaxee leen ko ñuy ñaanal président Abdoulaye Sylla lépp loo xam ne nii mën na ko ren mu mën lu ko raw déwén incha allah ba tax na lii moom taw feex dëgg dëgg dëgg la ba tax na rek moom ay mbiram rek li ma ciy wax rek bu ñuy dem rek lu ñuy gën a dem rek askanu Sénégal di gën a xam moom mooy kan. ñun moom yàlla saa noppal nañu bañ bañ xamee ci moom lu ndaw rek waaw tax na moom moom daal ay mbiram daal lépp kéemaan la rek lépp ay kéemaan la rek ñu koy ñaanal daal yàlla saa defal ko tawféex defal ko saxaadatu daaray nii ñu leen di jaar yéen ñëpp yéen bokk jullit yi jërë ngeen jëf salaatu lazi li xaada kawni xaliluhu ala man li tey yabal asalaamaaleykum mbokk yi maa ngi nuyu ñëpp ginnaaw bu ma sante san borom julli ci sangub sang yi alayhi salaatu wasalaam di nuyu xalifa pë Issa Diène sëñ Cheikh Alim Diène di nuyu jëwrinam sëñ Abdou Salaam Diène di nuyu mbokki Diène yépp maa ngi tàmbalee sama kàddu nuyo beneen bi jëmale ko ci Abdoulaye Sylla mi nga xam mooy jiite Ecotra SA ci jëf ju réy ji nga xam jooyal na ko jëmale ci lii nga xamante ni moo jëm ci màggalug Touba gi te doorewu ko ci ñun képp te yemu ko ci ñun ndax mën naa ni Touba gépp la fu mu penc am wala fu kër am wala fu nitu ku bu ñuy ziar nekk rek jël na xéewalam yóbbu fa kon nag buñ demee ba wërsëgam ak xéewalam tis ñëwati ci ñun ci jëm si ci njeene mën naa ni defalu ko kenn njenne gépp la ko defal ax lu njenne lagan gépp di wax ni nag lebal na ko nga xamante ni am nag fay ndax Cheikh Issa moom la Serigne Touba waxoon demal lagan ma fekk la faak lëgën lëgën joojee nag alhamdulilahi rabil alamin ba mu xeeñtoo ba bokk ca dugal ci aw ñaqam ndax lu baax kat doomu aadama bi bu koy xeeñtu la ca jiitu mooy mu wax ca lu baax la ca toop mooy mu def ca yéeneem ci lu baax la ca des mooy mu def ci dooleem ak aw ñaqam te jooyal na ko jëmale fii ndax màggal ku ko wax ni bernde te bernde ku ci yëkkatiwu nag dugal ko ci yaakaar naa ni kooku bokk na ci ñi nga xamante ni matale nañ li ëpp solo ci li nga xamante ni moom la sëriñ bi digle bis bii nag la ci sëñ Saliou waxoon rek la ñuy dellusi di ko ci fàttalee muy ku la ci raw raw la ba faaw ku la ci mën mën la ba faaw waaye kon Ablaye it ñu ngi koy ñaanal ci baaxuk sama borom ak jëf ju rafet yi nga xam def na ko jëmale ko ci njenne yàlla fay ko ci ngën gi fay sans borom ngañ ko ci ngëñ ngi fay ndax nekkul ni c'est la première fois mu ñëw ci njenne xéewalam ñëw fi wala wërsëgam ñëw na yabal rakkam mu fekk ma suñu dëkk njenne ak sëñ Issa mu teral xale yi nekk ci dëkk ba yëpp kon loola nu ko gisaatee tey duñ wax guléet duñ wax lu nu bett la waaye dañuy xam ni miin na ko te njëkkewu ko ci ñun ndax liggéey naa ak way juróom wu góor ndax li nga xamante ne moo jëm ci tuubaa gi jëm ci set ak setal bi nga xam mooy assainissement dëkk bi liggéey bu rëy bi nga xam def na ko ci ñëpp gis nañ ko ndax flotte bi la déplacé spécial indi ko fii nga xam mooy Touba ngir ñu sëkk dëkk bi ba fu waay jëm sag dem accessible kon nag loola liggéey bu rëy la kon nag bu jëlee nag wi joyal ko jëmale ko ci fii di njenne du ma ni sama bopp waaye dama naan yenn ak sëñ Issa ndax ñëpp la ko defal ndax ku ci yam am ci ku ci yemutit foo nekk ñu fekk la fa nga jël ci lay sa wërsëg kon njenne gépp la ko defal ñu ngi koy sant di ko gërëm ci turu njenne gépp en commençant par ki nga xam mooy xalifab Cheikh Issa ba ci ñun ñi nga xam ñoo gën a suufe gën a xeebu ñu ngi sant ñëpp di leen gërëm di leen ñaanal te di ko ñaanal yàlla yokk wërsëgam ba li mu yéene liggéey ci yoon wi yàlla defal ko ci lu fawxa njortam ci barki alayhi salaatu wasalaam sëñ Tuubaa day am nag fay ndax nee na ku ma lebal guddi ma fay ku ma lebal ker ma fay la guddi ku ma lebal loo munut ma fay la lu jomb kon nag moom mi ngi ca yoon woowa waaye yàlla bu mu ñëwee benn moroomam jëf ji rëy na kawe na jërëjëf nag daa munta romb jërëjëf waaye sunu xol sedd na sunu xel dal na ci turu njénne gépp ci jëf ju rëy ji nga xam Ablaye def na ko muy nag wi nga xam teg na ko ci sunu loxo kon nag ñu ngi koy santaat bu baax di ko gërëm di ko ñaanal di ñaanal ay way juróom docteur Sylla xam naa ko baayam ndax dawalal naa ko ñeenti at way juróom wu jigéen mère Aïda Sylla xam naa ko bu baax am na nu jaxasoo ay teraangaam day jóge fu di ma fekk fii ma nekk Thialis Faye rakkam ay teraangaam damay fekk fii waaye bu ma tuddee ñëpp tuddu ma sëñ saaliw rakkam bi nga xamante ne mooy jël nag wi teg ko sama loxo damay fàtte ki nga xam moo ci ëpp solo kon Saliou Sylla mi nga xam mooy rakkam moom it ñu ngi koy ñaanal yàlla yokk wërsëgam lim am yéene def ko ci yoon wi lépp yàlla may ko kartan ak wér ak wërsëgum ko defee ci barke alayhi salaatu wasalaam jëf ji daal rëy na sama kàddu ngeen dégg waaye ci turu ngeen ne gépp lañ leen sant ci turu famille yëpp lañ leen sant fii ñu ko yeew nag mooy sàmbeen di famille sàmbeen sunu maam bokk ca mag laxase woon kajoor topp si Cheikh Issa ngërëm ñu fekk ko fii déyal ko fii ndax Cheikh Issa fu mu amul penc daggal ko fa kër kon ñi ngi santaan ñëpp ci turu sàmbeen gépp di santaan ñëpp ci turu njenne gépp di sant ñëpp di sant Ablaye di sant famille bi di sant groupe Ecotra gépp di leen sant yéen caméraman yi nga xam fu ngeen jëm yéen a nga fa toggook ak seenu ñaq ak seenu coono ti bëgg lu jak ak lu rafet ak lu baax rek wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërë ngeen jëf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 عجيب به لي جاد مؤمنا النفر هديت عن المولى وعن خير خلقي asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp euh, man la Khadim Ngom euh, nekk euh, chargé de la communication du club C50 préférence nationale ci côté ABS bi ma nekk le coordonnateur national adjoint Abdoulaye Sylla 2024 Euh, tey jii di am contentement ak fierté ci bisub Serigne Touba bi comme ni ko président Abdoulaye Sylla yàgg di defee di jàppale njaboot Serigne Touba gi di jàppale tamit képp koo xam ne yaa ngi ñëw di màggal si euh, Touba. Euh, fii nag dalluwaay c cinquante de préférence nationale la ñu bari danañ ñëw màggal si suñu membre yi mu am yéene jaar ci loxo. docteur Sylla ak Serigne Saliou Sylla mu yàgg ko def daaw tamit defoon na fi ay teraanga yu mat sëkk donc amoon yéene ñëw gis euh, membre C50 yi fi nekkoon euh, malheureusement taw bi tëndee ko ren jii nag xat-xat yi bari na euh, mu xalaat ne ne fii tamit njaboot Serigne Abdoulaye Sylla dañ fi nekk mu xalaat def jëf ju rafet ji donc sëñ Saliou Sylla docteur Sylla jëfal jëf ji Abdoulaye Sylla donc ñun xam ne ñooy jàmbaaru Abdoulaye Sylla nekk sur le terrain donc di ko rafetlu te di am contentement bu rëy a rëy alaahi bi kawni abda rabbi xadimahu hajibun bihi li jaada munin anil nafar haditu anil mawla wa an xayri xalqi عليه سلام من لوؤت بالسفر صلاة وتسليم مع البيس سرمدا على من بي مكسيم الأمن والبشر فراري بالمختار من قبل قاد لي مكوسا وتفسيرا لدى الجن والبشر رقد شكورا بعد هند مقلد